taalibe yi noo ngi leen di jottali kàddu yu bàyyikoo ci sëriñ Abdul Fattah mu jële ko ci sëriñ Abu Baraka mu jële ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla na leen fi yàlla boole yàggal ak képp ku leen ko yéene ak képp ku ko bëgg kàddu yi nag ci ñaari tomb yu gàtt lañu koy tënk jëkk ba mooy fàttali ñaareel ba mooy soññee tuuti fàttali gi mooy bisub tey jàng nañu ko léegi sëñ bu mag bi wax ne bis la bu danañ ca def ay xéewal xéewloo ko waaye nag xéewal yooyu dañ ko war a sant yàlla ndax bisu sant yàlla la jaare ko ci jaar jaare ko ci jëfi ay ndigalam mu mel ne mi ngi jóge ci kenn ci jaamam ñi nga xam ne daa amoon aw ci aw loosam lu mu fi doon dox ni ko fi doomu aadama yëpp yi doxe waaye yàlla day tànnaat ci biir doomu aadama yooyu di ay jaamam ñoom ñëpp ñoo xam ne daf leen di yónni ci aw nit kooka digal leen tere leen su leen fekkee ci lam leen war a fekk mu soññi leen ca su leen ca fekkut mu jëm leen ca yóbbu te toogloo leen fa am ca jaamam ñoo ku ku ñuy wax Seydina Ibrahima alayhi salaam bokk ca dëkk ci ëpp dëkk di fa dund pas-pasam ba mu yàgg ba siiw mu wéet ca lool yemut ca wéetaay wa waaye ay fexekat fexeel ko ba génne ko dëkk ba ci tënk ndax la muy wax ak lañ xamoon du benn jooju tuuma rek lañ ko tuumaal yàlla jaarale ko ci ay nattu yu metti yoo xam ne benn bu ci nekk doy na sëkk waxtaane bisub lëmm jar na fàttaliku waaye ba ci gën a ràññiku moo jàkkaarloo woon ak suñu boroom ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma ma bokk ci ñu baax ñi waaye du ñu yem ci baax rek waaye dañuy baaxalaate rabbi habli min as-saalihiin loolu nag la ko cee gën a dimbale moo yàlla may ko njaboot goo xam ne bu fa jógee it bu leen yàlla yónniwut ni mu ko yónnee it lam doon ndox mën a wéy suñu boroom ne fa basharnaahu bi gulaamin xaliim yàlla dogal nag ca dogalam ba mu may ko doom fekk mag na lool ca ay at yàlla dogal ba mu demee ba tàmbalee looy looy tuuti suñu boroom digal ko mu rendi ko ci gént falamma balaga maahu saaya mooy dem na ba di looy looy mu gént yàlla ne ko rendi ko foofu nag lañ fay gën a jàngate mooy ku am njaboot na nga dund ak ñoom ci melokaan woo xam ne e, loo leen wax danañ ko gëm looleen wax ñu gëm ko ci danaa def walla duma def ci gént la gis suñu boroom ne ko rendi ko mu xëy woo ko boo doomam jooju ne ko yàlla ne naa la rendi daa fekk lu mu ko mës a wax rek dëgg la ñu dégg ci ne ku am njaboot ak nu mu leen mën a jaboote na sàmmoonteeg kàddoom sàmmonteeg melokaanam sàmmoonteeg ay jëfam musu ko wax lu amul musu ko wax lu dañ lu mu ko ca tegal texte bi قال يا yaa bunay inni ara fi lmanaam anni adbahuka fanzur maza tara demal nga waxtaan ak sa njëgëñaay ba xam loolu noo ko gisee mu ne ko waxtaan naa ak sama njëgëñaay ba noppi ndax loo ma mas wax teg naa ci sama bët te musuma gis nga jëf loo xam ne bokkut ak lu ñu do yaa abati ifal ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin waxtana ma sama njege ñaar ba nopi moy defal li la sura borom digal ci man mu diiso ak soxnam mu ne defal ci sa dom ji li la yalla diggal ci mom lolou nak buy ñew ko ñewat waris nay fatliku ne dom ju nek yaway domi sayidna ibrahima kune waye ku yilif njaboot ku nek yaway sayidna ibrahima ci jamono yooyaay ci pas-pas ci setantal loola bokk yi mooy waral bisub tabaski ba mu demee ba war a jëfandikoo nag ndigalul suñu borom loolu ci la ko suñu borom jël jëlal doomam tegal ko ne wattee ko am xaaf falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadaynahu an ya ibrahim qad sadaqta qad sadaqta ar-ruhya inna kadalika najzi al muhsinina inna hadha lahu al bala'u al mubin وفديناه بضبع عظيم وتركنا عليه في الآخرين موتخ بمكو جوتا أك خاف مومي تيلا كون يو أمغا وي ودول فاي بفاو كون تيتن كدال ديسنا تي فاتلكو گم يالا ت دويلوكو يامتا واي ديسنا تي سونيانتا يت كن كوشنك نيم يليف nay fexe ba duñ gis muy def mukk lu ñuy yóbbu loxo gémmiñ te du tib waaye lu mu leen wax it nañ ko gëm mbokk yi kuy naxe njabootam gu ndaw bëgguñu ñu tiit saa su nekk mu naan leen gaynde gaa ngi ñëw wala ñaay waa ngi ñëw bu yàggee dana xam ne gaynde du ñëw te ñay du ñëw ndax bu gayne bu gone gi demee ba xamné ba xam gayne moy kan dana xamné bu gayne gi ñëw du ko ko wax le kilifa andon ak njabotam def lay def fofu lay ko koo xam da and ànd ak njabootam ñi yom mi ba yagg ñu né ci cët ci gayne gogu ma doon wax njabot gépp ne ci ginnawam yaakar ko kenn ci ñi ko jegee ne ko waaw yaay kilifa gi de fi ñu toll nii tembe lenn lañ am ci luñ ñu lay laabiire mooy nga daw mu ne insha allah daal di fëx ñu topp ko foofu li ñu fi jàngate mooy mu ngi ñëw mi ngi ñëw joo xam ne <clears throat> xam nga ne bu ñëwee da la fa fekk yow da daw ni ñoom loolu des ci jàngate wax dëgg njaboot dañ leen di wax dëgg tey def ci seen kanam loo xam ne loxo du yóbbu du dem gémmiñ te ab du ko ci yóbbu kon njàngat mu rëy nga ci bis bi yàlla noonu yàlla dimbale ba jaamu yàlla giñ ci def mu nangu ko te bu ko nangoo yàlla ñu ko làqal foo xam ne yàq du fa yegg sëriñ bi nag mu ngi ñuy fàttali e, ñu teg suñu tànk foofu te fas yéene bis bu romb ñu jàppe suñu bopp ci pas-pas ci gëm yàlla ak doyloo ko jëmmi Seydina Ibrahima ja ndax yàlla nee na ko woon da des ba faaw ginnaaw dafay des ba faaw rek la mu doon def faaw am ñu ko yor kenn ku ne ci jëmma a fexe bokk waaye ñi njaboot itam kenn ku ci nekk na fexe bokk ci pas-pas ba doomi Seydina Ibrahima ja yoroon ba di xool kilifaam ak ñaari gëtam bañ tegg teggi ci moom ba fu mu tegu tànkam su ko fu mënta tegit mu jéem fa mépp sëriñ bi nag nee na nun ñi ñëpp danoo am kilifa goo xam ne e, ku ko xam te nekkoon feneen danga ne woon géej xam ko ndax kenn du ko xam di ko bañ e, ay soppe la am ak ñi ko bëgg ak ñu ko gëm te kenn ku ci nekk la ko ca bàyyi moo ca bàyyi moroomam nee na ku am kilifa gu mat kilifa muy as cheikhul xadim da nga ko naan nankutum téyeeku ak say yoxo soo su la ci say yoxo doyutut nga génn ci mbedd mi xool ku yor yoxo yoo xam ne doywu ko dara mu abal la ko nga téyee ko ci xam ne kat yii wër yëpp di taxawaalu luy taxawaal la ñuy wër wala koy taxawaalu ndax ki jël gànnaay jim ci àll bi di wuti naat naat yi ne ci dëkk bi taxu koo jóg ndax xam na naat gone mi ci ay yoxo waaye naat yi ko tax a jóg mooy naat yoo xam ne ci àll bi la nekk nekku ci yoxoy kenn ku dul loxo yàlla moom itam mu ne te yàlla daganal mu jëfandikoo leen wax sax ba rab yi nga xam ne dañoo nekk ci àll bi ku ci mel ne euh, kéwal ku ko seen ci àll bi te am ci ndigal sañ nga koo teg bal mu daanu nga fekk ko fa waaye bu fekkee da nga ko fekk ci dëkk bi bëgg koo jàpp ci si biir kër soo ko tegee bal ba mu ne këpp it doo ko sañee jëfandikoo la ko waral mooy kii daane ci yoxo te kay newut ci ay yoxo ki ne ci ay yoxo am na fu ñuy jaar ak moom waaye ki ci nekku ci loxo am na fu ñuy jaar kon yàlla nañu yàlla yàggal ci loxo yañu war a yañu war a nekk te saxal ñu ca te xooloo ñu ko te bañ ñoo xooloo leneen sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di ñaan yàlla teew gii ñu ko fekk teewee ren fekke ko mu ngi ñaan yàlla ñu fekke ko déwén te bàyyi fi kilifa yi te may leen ak wér te saa buñ geesoo gis leen gis ki seen gannaaw mi ngi sant mbokk yëpp ak fu ñu mën a bàyyi ko gis na ne ñi saafoonteeg moom ci biir mënut a ñu ñëpp seeni tur waaye ñëpp moom bàyyiwut kenn fu ñu mën a bàyyi ko it fépp bàyyiwut fenn mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla nañ ko fekke te moom it suñu borom bàyyil na ko fi moo ay kilifaam ñoom ñëpp ndax damay faral di wax ne ñu yomba àndal la ñu koo xam ne na ko sëriñ Saalihu Mbakke radiyallahu anhu waxe woon ku koy dox rek faw sak njaboot dañ la xool te dañ la topp soo jiitoo dox doxin wu yem wuñ la mën a toppe boo leen rawee taxaw néeg leen buñ ñëwut nga wàññi ko xool leen lu leen tey ñëw yàlla na ko yàlla fay moom sëriñ Saliou njàngale mu rëy la kon kàddu yooyu la sëriñ bi waxoon nañ ko jottali fu waay mën a bàyyi ko yàlla nga àggat ci jàmm te ñi ñi ci bàyyi it na leen fi yàlla dañu bàyyi leen fi ci jàmm te liñ ci am ci bi yàlla na ko suñu borom nangu te dencal ñu ko fu yàq yëggut asalaamaaleykum wa rahmatullah